Ah, ñu war a góor ñu ñu war a góor góor mm-hmm. fu mu nekk ni man nekkul Gambie man damay nekkoon ni si abroad mm-hmm. Mm-hmm. waaw suma xel mu ngi si yow toujours xam naa loolu ah yaa suñu kilifa yi lañuy def ñun amul dara yàlla ak yonente rek la ñu am sallallahu alayhi wa sallam am nañ lépp ah ñu continuer loolu ñun tamit ñu lay war a bàyyi suñu gannaaw man kontaan na comme ça man maa nekkoon foofu tey ndeysaan ndeysaan ndeysaan so ñu góorgóorlu noonu lu ñu war a wax ci lu baax ci bés bii ñu wax loolu nit ñu xam balaa nga wax dara nga wax dara yow xamuloo ko ku nga xam nga jox ko boobu mu wax ko Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf dafa am suma xarit yi nga suma doon mbee mu ne ma jox la nga nuyoo moom tamit jox ma ko salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah euh, mel ni kooku dem na mhm. suñ mbokk yi nga xam ne yéen a ñoo seetaan fii ci Gambia radio and television services mhm. wax naa leen ne tey ñun jullit ñi tey suñ bés la ñuy wis ñëpp happy new year mhm. na tey la suñ bési new year boo xam ne ni ñun dañ war a génn ànda suñuy njaboot ziyaare wante ñaanalante jàmm saaf wante na bés bi gis ngeen li nga xam ne moom la ci alaaji oustaz Dramé wax mu nekk kérémaan yoo xam ne ni yàlla tegoon na ko ay jaamam te yi yii mu ngi am ba tey waaye nag lii rek dinañu delloo waat suñ xel ci gannaaw mm-hmm. indi waataat ñu ba nga xam ne ni dinañ mun a xam li nga xam ne moo ñu war ci àddina mm-hmm. ñu gën koo def mm-hmm. waaye dañoo am ñi nga xam ne ni ñooy suñ beneen daayra bi tey bési bégee la su ko defee ñoom i tamit ñu woy tuuti si rasulilaay sallallahu alayhi wa sallam محمد الأمين يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي شيبة الأنبياء يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي محمد الأمين يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي محمد الأمين يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي محمد الأمين يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي محمد الأمين يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي محمد الأمين يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي محمد الأمين يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي مصطفى يرم جامني يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي ومسوق قدر اندام ومسوق قدر اندام ومسوق قدر اندام رسولي خاتم ايام sunu jaam ya muhammad ya habibi ya muhammad kun tabibi أنا دايرا مجامع يا محمد يا حبيبي يا محمد كن دبيبي يا سراج الأولياء أنا دايرا مجامع يا محمد يا حبيبي يا محمد كن دبيبي يوم القصاص مصطفى رم جامع يا محمد يا حبيبي يا محمد كن حبيبي رم جامي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن حبيبي wéy mm-hmm. neex nañ torop macha mm-hmm. allah wéy neex nañ torop ndeysaan fu ñu taggee yónent bi rek xol yi dañoo tooy yaa mm-hmm. Muhammad waaye saa su nekk rek réewi Gambia ni ma ko dee faral di waxee tey suñ bés la muy feeti jullit ñi mu nekk bés bi nga xam ne ni muy yomal ashura tey nag dañ ko fas éenee màggal ci màggal bi nga xam ne nii ñun jullit yépp Mm-hmm. dinañ ci jaamu dinañ ci jànge te it dinañ gën a moytu mm-hmm. mu nekk bés boo xam ne nii tey lépp luñ ci ñaanit yàlla dinañu ko fulandil yàlla safaraal ñu ko mm-hmm. ñuy ñaan nag ñun ñëpp ni ko suma maam da baax Malick daan waxee ñu gën a tàppe xol yi tey nag moom dañ pare ñore pour gën a wax suñ mbokki jullit ñu gën a ñaax ñu gën a bàyyi xel su diggante nit ak moroomam lu nekk am na rek bés bi lu ko sabab mhm. ba na dañoo bàyyiwaat kii nga xam ne mooy alaaji oustaz mhm. Dramé mhm. mu gën ñu joxaat ñu beneen jaar-jaar ci yónente yi macha allah waaw jërëjëf maam ñu ngi sant dayra bi bu baax waaw <laughs> ci sikar yu neex yi ñu sikar waaw <laughs> rawatina fi ñu mujjee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, fa tabarakallahu nga xam ni yàlla daf ko tagg ci jikko ju rafet na ko kenn dootul la féetee kaw mhm. ci jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azimin mhm. euh, ñu indi xasiida bi nga xam ne mhm. euh, dafa tagg yonent bi ci cëram yi cër bu ne ñu tagg ko ca mm. loxo ba nopp ya làmmiñ wa tànk ya ndeysaan lu ne ñu taggee ko ko fa tabaarakallah di mm-hmm. ñaan ñoom it yàlla def ci ñoom barke euh, maam bis mm-hmm. bi bis bu am solo la mm-hmm. ba tax na mag ñi daan nañ ko màggal lool mm-hmm. euh, di ci ziyaare wante mm-hmm. daan nga gis ku jël njobootam ànd ak sa njoboot mm-hmm. dem yóbbu leen ci sa euh, say kilifa ñu dem ziyaare ji leen njoboot gi di xamante loolu nekkoon lu am solo kon bisu jokk mbokk la mm-hmm. bisu siyaare wante la mm-hmm. ci yàlla mm-hmm. rawatina diggante dëkkandoor ak moroomu dëkkandooram ndax léegoo-léeg maam nga dëkk ak nit lor ko te yëguloo ko waaye rafet ngeen daje di baaluwante àq àq yooy nga xam ne dafa dox seen diggante wala mu dox ci seen diggante ak seen njoboot te dëkkin sabab ko ngeen jéggalante ko su ko defee yàlla subhanahu wa taala jéggal ñu am na ku nekk ci line bi hello asalaamaaleykum hello waaleykum salaam baaba ñu ngi laa déglu yaay kii mooy oustaz Dramé ah waaw kii mooy oustaz Dramé ko bëgg a laajte te programme bu lifin Africa radio hmm. mhm. waaw bu lifin bi Ousseynou Karbala. waaw. Hmm. so dama bëgg a laajte ban bés la ko continuer. jërëjëf <laughs> ñu ngi koy sant bu baax. Mhm. Euh, euh, maam xam nga. Mhm. bis bii li ci xew dafa bari. dëgg <laughs> bokk na ca li muy tudd noonu. waaw mooy sëtu yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mhm. Seyduna ci bisu tey bii. la ko noon yi rey ca Irak mhm. ci suufu Karbala muy bis bu métti ci jullit ñi nga xam ne duñ ko fàtte ndeysaan mu nekk bis boo xam ne bu xel yi demee ci taxawaayu sëtu yonent boobu sallallahu alayhi nga xam ne mhm. yënant bi sallallahu alayhi wa sallam nettali nañu maam xadis boo xam ne yàlla dafa dugal nit ni ñu jël na kola bi oustaz ñu dugal nag ci boobu noonu incha allah incha allah ndax kooku noonu jar nañoo déglu jaar jaaram moom itamit bismillah hello asalaamaaleykum naam dafa mel kooku dem na waaye nag su ko defee fi mu nekk